or dañuy sant yàlla si suñu mbokk yi nga xam ne ils on été libérés parce que defuñu woon dara déjà pour être en prison donc euh, je pense que seen libération euh, du comme ni ma koy waxee toujours du euh, news du maanaam du actualité parce que defuñu dara c'est des personnes qui ne devaient jamais être en prison donc s'ils sont libérés alhamdulillahi rabbil alamin Euh, ñu ngi sant yàlla ci bi ñu delloo si seen njaboot ak jàmm ak salaam euh, te di ñaan yàlla rek yàlla continuer leen dooleel naqar bi nga xam ne aussi moom la ñu dund yàlla fayee leen ko bànneex euh, man nag dafa am kàddu boo xam ne tey moom moo ma intrigue lool te dama ko bëgg a teg rek ci yar ak teggin ak information le président Macky Sall qui se dit que vraiment defar Sénégal moo tax a jóg dañuy dañuy am just being hypothetical ah du ma technique nag waaye damay hypothetical rek nee na Sénégal moo ko tax a jóg ak intérêt Sénégal donc nañu laaj suñu bopp donc lan la Mansour fay di def à la tête euh, du ministère du transport parce que gis nañu barki Dembo Ndiaye Diouf Sarr Diouf saar moo nekkoon ministre euh, bi nga xam ne moom moo yoroon wallum pajum paj gu yaram te gis nañ fi Diouf Sarr incompétence yi nga xam ne moo ko fi toppoon gis nañ fi benn jigéen bu wasin euh, dee ci hôpital ba gis nañu fukki xale ak benn yoo xam ne ñoom ñoo dee woon fële ci Tiwaawan euh, donc euh, mujj gi dafa dem ba Diouf saar moom mënatul woon dem moom ci boppam poussé nañ ko ba mu démissionné wala ñu limogé ko sax soi-disant léegi nag Mansour Faye goro président de la République bi mu nekkee ci bopp li nga xam ne moom mooy ministère du transport ba léegi Euh, lu ëpp juróom junni naa fukki junni ci ay doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan fukki aadama euh, fukki junni ak benn ci ay doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan new ma la fukk ak benn de xam nga Diouf Sarr ñu ngi ne fukki bébé ak benn loo xam ne nag c'est extraordinaire parce que fukki nit ak benn fukki bakkan ak benn kenn mënu koo xayma ci métti waaye léegi Diouf Sarr fukki bakkan ak benn la wax Mansour Faye fukki junni ak benn ci ay bakkan ñàkk nañu seen bakkan ci ay nit fukki junni ak benn ñàkk nañ seen bakkan ci ay transport ci ay nit lan la Mansour Faye di def à la tête du ministre de du transport loolu la bëgg a xam ngeen ne Macky Sall dafa bëgg Sénégal yéen ñi ànd ak Macky sàll ngeen ne Macky Sall moo fi nekk pour defar Sénégal ngeen ne Macky Sall gëm na Sénégal benn test Mansour Faye est-ce que yéen xam ngeen méttit bi nga xam ne sénégalais yaa ngi koy dund maa ngi jot benn vidéo xaaral ma tegal leen ko macha allah suñu frère bi il a été très pertinent ñu bari kàddu gi c'est là fii metti foofu la Macky Sall pourquoi Mansour Faye à la tête du ministère du transport nañu ñëwaat bismillah. <coughs> Abdoulaye Diouf Sarr bi ñu koy dàq ñaata bébé moo faatu woon ci waa onze onze ñaata nit bi. ñaata blessé. soixante-neuf c'est cent trente-neuf qui sont cent Abdoulaye Diouf Sarr Macky Sall xaaru sax da koo dàq fa mu nekk nga xam ne bi mu ñëwee du jegewu ko fenn muy dem ci le lieux du sinistre mm-hmm. nag il s'est permis Mansour Faye fay Sall bi mu demee sur le terrain man bi ma ko gisee ci wetu président damaa tiit parce que dama ne kii il n'a pas apprécié la gravité de la situation. et il n'a pas peur la première mooy bu dee accident bi ci infrastructure la jógee moom mooy ministre des infrastructures. Mmh. exact. bu dee ci transport mooy transport moo xam attitude chauffeur la wala oto bi. Mmh. ay services am yi sont impliqués parce que mooy ministre des transports. exact kon dans tous les cas il est la la responsabilité lui incombe. la responsabilité morale. morale non parce que ces services sont parce que bu dee défaillance technique la ñoom ñoo ñooy technique. Mhm. bu dee défaillance bi ci tali bi la. moom moo yor infrastructure. parce que dans tous les cas moom ci boppam moo waroon a saisir l'opportunité am une grandeur démissionner. exactement mettre à l'aise parce que li ngay wax ni man ci loolu laa. voilà parce que mun deux poids deux mesures la voilà Abdoulaye Diouf Sarr mënul nekk fi mu nekkoon. bi ñu fii di xew fekkiwu ko. exactement ay nitam ña fa nekkoon dañ leen a sanctionné am na kuñ ci tëj. exact yóbbu leen ci justice. lu gën a garaaw loolu xew. waaw président jóg sur le champ. décrété trois jours de deuil national. ki nga xam ne mooy responsabilité morale bi. même exécutive. interpréter parce que responsable dafa léger pour man. mais c' est vrai. boo xoolee démb ay services am yëpp dañoo envahir les plateaux de télévision am na lu xew. parce que xam nañ ne ils sont impliqués. jusqu'au bout. exactement. léegi nag jóg ku ci nekk di wax say wax ku nekk di jéem a défendre lu l'indéfendable. voilà am na loo xam ne bu amee da nga koy assumer. exactement parce que ñuy teg di vanté wu. exact naan defar nañ nangami pont defar nañ échangeur ay tànk. léegi nag bu leen amee ci liñ yor nañ nangu ne fitna ñoom doon nañ ci dara comme nañ doone ci li baax dara mhm. bu safaan amee ñu nangu ne ñoom doon nañ ci dara exactement comme lii Momar wax c'est pas la première fois day am na lu muy nuru mhm. day am na muy nuru te les gens vont se poser des questions te defe naa ne bii yoon le président va pas laisser tomber ne va pas laisser yaakaar we think ça bu rafet ne xëy na lu bàyyi mu jàll parce que bu dee dañuy xool rek ci lu yanu maanaam. ci li fi jaar. ku ne xam ne ne Ablaye Wade li ko gënoon a yàqal Karim Wade ci la ko. li ko gënoon a yàqal. li ñu impliqué woon te dafa mel ni Mansour Faye lii ñu ko jox Karim Wade joxoon nañ ko ko. kon am na lu muy dund. nit ki nag da nekk da xalaat ay tëralin damaa yaakaar ne Sénégal ñi fi mën a yor. ministère des transports et des infrastructures. dafa bari. ñu ko fi accaparé accaparé. te moom defe naa il n'est pas un technicien un spécialiste en la matière. non. te loolu itam dafa am leneen lu luñ ci war a jàngate dafa am post yoo xam ne c'est pas des post politiques. Mm-hmm. c'est des post technocratiques. tout à fait baaxul parce que mbir mu yoon ak oto yi li ñuy daw fi ñuy daw fi ñuy jaar li ñuy yab ak lu dul yab. loolu nit ku ko xam nga ko war a jox. dañ koy jox ku ko xam mooy. lu ay caaxaan. kenn du ko politiqué. léegi nag lii lii ci feeñ nii dafa am lu muy wane. pour man lii nii weeru yàlla la. Mhm. ba yàlla mooy wane ne lii fii ki ko war a yor yoru ko. kon nag lu war taxew mooy xew. Mhm. léegi nag bu xewee ba pare ñu am nag odaasu taxaw mais jox nañ xaalis askan wa fa loru. mel ne xaalis bi dañ leen ko may moomuñu xaalis bi ñuy joxe. Mm. moomuñu ko c' est l' argent du contribuable c' est ton argent c' est l' argent fii lii mooy wax bi nga xam ne moom moo important tey ci Sénégal moom mooy débat bi plateau yëpp war a amal tey ci Sénégal si on est dans un pays sérieux ñu ne infrastructure Mansour Faye moo ko yor transport Mansour Faye moo ko yor. bu dee li nga xam ne accident bi la defayance su accident bi maanaam problème mu accident bi loraange bi bu dee ci infrastructure la jóge Mansour fay mooy responsable bu dee aussi bi nee nañu ci transport bi la jógee Mansour Faye mooy responsable ndax dégg nañ fi ba dégg ne am na benn bureau visite technique boo xam ne dañ ko ubbi foofu ci Dakar boo xam ne ka nga xam ne moo koy gérer c'est un ancien dentiste dentiste la de defarkatu bëñ moom lañu jël jox ko bureau technique bi dégg naa ku ñëw nga teg fa xaalis biñ nga fa war a teg rek ñu daal di la jox passé nga passé technique ay wax la nag te laaj na firnde waaye naka la ñuy mën a amee un ancien dentiste ami de Mansour Faye dégg naa mu ubbi bureau boo xam ne ku ñëw rek ñu passé la visite technique nga joxe ay millions ay walla ay cent mille ay nangam gars yi passé la bu boobaa lan mooy xew ñoom ñu séddale xaalis bi te dégg naa bureau boobu ñu ngi ciy dajale à hauteur des milliards kan lañ fi joxoon wàllu Covid 19 bi xaalis bi du Mansour Faye maa ngi fàttaliku mi euh, journaliste Babacar xaw ma lan bi mu ko fi laajee question mu ne ko boo ma ko waxatee ma porte la plainte lan la Mansour Faye def dem joxi benn jaaykatu shawarma boo xam ne xaritu Amadou Sall la ñaari contrat bu 17 milliards ak bu 18 milliards yooyu mi ngi fii ne fàng-fàngaaral kenn dàqu ko ci dara mu toog muy menacer ay journaliste ne ku ma wax ma ma ma ma ma ma ma porter la plainte ndax xam na comme ci porte plainte nga am problème ndax kookooy Mansour Faye on est dans quel pays ñun ci ban réew lañu ne waxuma la kumba am ndey kumba amul ndey sax waaye kumba am ndey kumba boo xam ne masta am ndey moo fa am nañu arrêté Macky Sall prend tes responsabilités bu dee nga ne président nga waxuma bu dee cogg nga de wala suq comme niñ ko xamee ci yow bu dee tu dis que tu es un vrai président limoge Mansour Faye immédiatement et prends une personne qui a la compétence d'être un ministre de l'infrastructure et un ministre du transport et donne-lui le transport ndax xam naa ne problème mu transport u Sénégal yi ku ko bëggoon faj vingt quatre heures nga faj ko parce que benn da ngay jël lépp loo xam ne pono bu bon la kenn dootu ko def ci oto poids lépp loo xam ne pono bu bon la maanaam visite ngeen taxawal ay gendarme ak ay policiers ci tali Sénégal yi yépp ñuy def lu tudd DOT inspection parce que ñun dafa am ci suñu réew yi ah réew yi ñu nekk nii at bu ne daf fi am da ngay gis ay policier ay gendarme taxaw fépp ci tali yi camion bu ñëw ñu xool say pneu xool say frein xool maanaam ndax camion bi wala oto bi méngoo na ak daw visite technique boo demee dañuy branché auto bi ci machine machine bi di ko liir tëtër machine bi di ko liir am na yenn maqaama yoo xam ne oto yoo xam ne fii tàppale nag am na ci réew bu ne waaye gis nga fii bu ñu la jàppee ngay tàppale dañ lay tëj ñaar fukki at tout de suite ba pare nangu sa permis d'exercer sa sa matière donc lan la ñu war a mën a toog tey ñu toog di xaar Mansour Faye une personne qui est incompétente fi mu nekk ñu ñëpp ñu xam li ñu xam ñu noppi ci juróom benn fukki bakkan moo rot barki dem ba ba léegi mi ngi yokk léegi lu ñuy def dañuy noppi ñu ne ah non c'est pas voilà goro président la na génn ñi ànd ak moom nañu génn envahir plateau yi fen sénégalais yi fen laa ko tuddee fen ak a sos les sénégalais nañu jël suñu ay responsabilité lii nga xam ne mi ngi xew ci réew mi nii na dakk ñii ñu ko sekkal ay bandi lañu ñii ñu ko sekkal ay nit lañu xam nañu li xew ci réew mi kenn dofu fi xam nga boo nekkee ci am réew moo xam ne ay samba boy ñoo ko jiite problème yu mel nii ngay am dama ne nañu jël suñu ay responsabilité lii xew nii ci Sénégal warul dem sans punition dafa am ay nit yu war a démissionner ay nit yu ñu wara a limogé ay nit yu war a dem prison loolu mooy dëgg nañu def suñu ay investigation président Macky Sall demul ci terrain bi pour massawu ña nga xam ne ñoom ñoo gaañ président Macky Sall dafa dem ci terrain bi pour jéem a dem wane hôpitalu Kaffrine bi ne moom tabax na hôpital de dernier niveau hôpital bu amul benn matériel bu mu fajee ay nitam poche de sang yi ñu ngi mel ni mal màlle nit ñaa ngi mayee deret fu ne ci ci ci Sénégal may wax waa jooju moom mu def boppam Colombo nit ku salte kooku waa ji dani dem dugg ci biir bus boo xam ne ay nit ñoo ci dee muy photo woo ko lii du affaire woy lii du affaire woyaan lii du affaire sambay mbayaan respecté leen sénégalais ay doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan seeni ay il faut arrêter la politisation de ce décès ngeen dàq ñi ngeen war a dàq ñi war a dem prison dem prison ba pare ñi ñu war a tenir responsable ñu tenir leen responsable li xew Sénégal metti na metti na lool metti na ba fi metti di yem Mansour Faye tey warul fanaan en tant que ministre du transport et de l'infrastructure loolu mooy dëgg boo ne dëgg dëgg xawma nag boo leen nekkee ay fenkat ak i soskat ak ay tappalekat comme ni niñ ko xamee ci yéen vraiment shame on you shame vraiment shame on you my mon pays va mal shame on you te ñu ngi leen di xaar boo leen yaakaaree ne bii yomb ci yéen boo leen yaakaaree ne ñu bàyyi leen bii jàll comme na yële daan jàllee nax ngeen seen bopp